cere ngeen jëf mbokk internet yi tey nag mbokk yi ñu indi xibaar bu tiis xibaar boo xamante si ni maanaam diggante doomu bàjjan ak doomu nijaay e, yu doon xëccoo wàllu téléphone ah, téléphone boo xam moo dox seen diggante e, ba jàppante am ca ba kenn ku nuy wax jibi ñàkk bakkanam waaye kii di Assane lan wax ni moo ko boom mbokk yi fii ñu taxaw nag ñu ngi ci cilaan ci laan nag buñ ko déggee dafa bokk ci Morolan ci département bu Tivaouane arrondissement bu Pambal mbokk yi foofu lañ taxaw tey euh, ñu ngi masawu famille bu baax a baax nag Moussa fii ñu taxaw nag nee nañ fi la jàppante bi amoon ndax néegu Assane moo nekk nii Assane Assane mi nga xam moo boom ji bi néegam moo nekk nii ci néeg bi nag la jàppante bi amee euh, ñu xeex ñoom ñaar ba Assane ji bi nag daal di ñàkk bakkanam waaye mbokk yi fii la daanu booy xool tamit euh, fi mu daanu gis nga wàllu deret ji moo nekk nii. fii la daanu rek ndeysaan fii la ñàkkee bakkanam euh, gis ngeen gis ko noonu foofu la tëdd ñàkk bakkanam ñu ne nag jaasi la ko jam ci ci ci faaru càmmoñ gi loolu la mbokk yi wax xëy na rek euh, li gën a leer rek mooy ñu dem dëkk leen suñu micro ñu ñu ñu wax ñu daal ni mbir mi demee ak kan mooy Assane ak kan mooy Jibi gannaaw ba lépp ci famille la xewee yaayu Jibee ngi ci kër gi yaayu Assane a ngi ci kër gi ñooñ ñëpp nan fexe ba jokkoo ak ñoom Moussa kon da ngay ànd ak man rek ñu dem jéem a xool xibaar bi ana nan la tëddee. mooy sama doom ku ma bëgg bëgg njabootam musuma jooyloo su ma waxee loo xam ne sax xol bi day jóg day mujjee na yaay baal ma jég maa ngi jéggal waaw waruma a wax léegi ma ne ko kon baal moom daal bëgg na njabootam bëgg ma day business waaye bu businessee ba ay yenn óor yi day ñëw fàttaliku ma delluwaat ci liggéeyam mu na ma dama fi jaaroon pour xam ni ngeen nekk ma ne ko waaw ne doo toog mu ne maa ngi dem jàmbaare waxtu du ko faat bu naree faat waxtu day yàq liggéey waaye foog mu def foog mu julli doo a dellu si li muy def dëkk dëkk bi yëpp moom lañ ko seedeel bi ma ñëwee fii baat yooyu yëpp fii laa ko fekk parce que action bi fekkuma fi damaa ñëw rek ñuy wax mais wax yi ba tey mënuma wax nit lu ci leer ndax xaw ci dara waaye ñii ngi wax nii ñii wax nii waaye mënuma ci wax daal lu leer ndax man fekkewu nga dikkee ana lan nga dee njëkk a dégg waaw hmm? ah, dégg naa daal ay portable bii lañ doon xëccoo waaw ñuy xeex ci ruq ba fële affaire bi ci kër gi la ame waaw waaye ni mu demee ci biir xeex ba man xaw ma ci dara mënuma ci wax dara waaw wax nañ ma daal si portable la tàmbalee fii lañ ko doon saase rakkam bele ci néegam lañ ko doon saase mu ñu mu ne ko Fatou julli naa geew ba pare dama indi ma portable bi mu ñëw gisu ko affaire bi daal fa la tàmbalee ñu nekk fii di xeex nekk ci li ma dégg waaw dara fekkewu ma ko ci dee na daal laa dégg maa ngi kees maa ngi ñii dee daal laa dégg waaye mënuma cee wax dara. mais nekk na koo xam ne daal ku ma bëgg la ku ma yërëm yërëm njabootam ndax juróomi doomam yëpp bi mu tàggoog soxnaam maa leen yor ba fi mu ne maa leen yor waaw waaye mosuma wax bët bu xonk. Lumana ra a def sax bu buy ñëwee rek da kay day jema japp man nga a ah, jibi bay lo man a ah, talu bela ni wa bëgg ma lol nak bëgg njabootam wa kon dal dafa teg téléphone ñëw fekkatu ko fa mu koy laajte lol mo jur histoire. mo indi wax ci wa wax ji dal lol la man li ma ci xam dal mm. mm. kiko bom ci kër gi la dëkkoon. wa kiko bom asan la tudd asan job yi papam nam nàmp jox ma papam nam nàmp jox ma wa ci kër gi la dëkk ak mom këram mu nga neew waaye bu soxlaa dara day dugg fii waaw léegi ana asan moom asan nag gisaguñ ko waaw gisaguñ ko moom yoon mu ngi ci topp rek waaye gisaguñ ko daal dugg ci koor bi koor bi ñu ne mu ngi ñëw de fii lañ koy denc armeel daal nga jàkkaar la Fatou Diouf Fatou yow ci kër gi nga nekk mu mel ne coow bi la la ah, ma ci li ma si mën a wax daal moom amul benn problème musul def nit lu ñaaw musul def nit lu bon ñëpp la bëgg ñëpp la amal jàmm bàyyi si dëkk bi ñëpp koo taxaw tey mën na la seede ku jibi ba si man rakkam amul benn problème téléphone bi nag sama néeg lañ ko branché woon mu ñëw dem julli ji timis avant muy dem julli timis ñëw na taal téléphone bi laa bi ma koy jot dafa fayoon ñëw taal ko pour bu amee appel na dafa waxoon dafa am ko ko war a woo mu taal téléphone dem julli timis ba ñëw fii lañ daje ma naan ko dem nga julli ji ba ñëw mu ne ma waa ma ne ko loo jël si téléphone mu ne ma waa kay joxaale ma ko parce que dafa am ma war a woo ma dugg di ko jël moom mi ngi taxaw sama buntu nekk di ma xaar ma yàgg si biir mu ne ma bu dee feesul nga bàyyi ko ba si kanam ma ne ko man kay dama koo gisul mu ne loolu nu mën a nekkee waaw loolu nu mën a nekkee te bi may dem fii laa ko bàyyi moom nag du question dafa jël doomu jàmbur jiñ ko sàcc waaw ndax moom wax na jour boobu ne li tax moom mu sib doomu ki ko rey ne moom moo jël téléphone ndax bi muy taal téléphone bi ci kanamam la te neen li tax mu soupçonné kon mës na dugg ci néegam ñaari yoon sàcc carte mémoire am xam ne ay arxuraan rek la ci defoon waaw nee na dugg na duggaat na néegam tam jël fa batterie téléphone am loolu tax jour boobu te li tax moom mu gën ko soupçonné ndax jour boobu xale yëpp téléphone bi foofu la fekk booy bi te après booy bi dañ koo gisul du wër nañ ko dëkk fii yëpp gisuñu ko fii yëpp seet nañ ko gisuñu ko. moom nag mu toog di ko xaar si laa ko ne dalal toog xaar ko ba mu ñëw bu ñëwee ñu laaj ko bu dee moom moo ko jël dina ko kii mu dem si sama nijaay wax ko sama nijaay ne ko léegi dalal moom nag xam naa mënul muñ mënul muñ comme uh, am na uh, uh, am na waaw am na lu ko metti te téléphone bi neen dafa seer waaw xam naa loolu tax mënul muñ bi muy dem di fekk ji gaañ bi fee ñun suñu ko sax ndax bunt bi la la awee ndax moom këram moo nekk ne suñ beneen bunt bi la la fekk ko foofu ma jékki-jékki dégg yu ko génn mu ñëwee ci suuf laa ko fekk dem naa ba tiim ko si sama kanam la doge. Ah, fan la ko gaañ. si wetu faar bi la ko jam dagg baaraamam bi bi ki def loolu moom lan la moom xanaa day jëfandikoo Sénégal wala lan la. ah ma de waaye day tuxum. sax moom yi yàgg na def yu ni mel ndax musuta jàppante kenn di ko doon nit ku sévère daal wala moom di dog la ah musul def lu mel nii moom mi ngi koy doog a def musul def lu mel nii jibi léegi moom daal ñàkk na bakkanam waaw jibi moom ñàkk na bakkanam léegi ñu fa ah ñeneen lépp nañ ko teg si loxo yàlla ñu ko teg si loxo yàlla rek atte yàlla moom moo gën bu nit ñu koy ñaanal fi mu tëdd gënal ko fi mu jógee yàlla oyofal suuf si kawam njabootam bi mu baye yalla tek ci loxo yaay taawu jibi wa man maay doomu taawam may mun a mbay sam papa bëggulul kenn lu bon ñom ñom ñom ño xam lu bon ba pare diko def mais fi sam sam papa sam papa wonu fonu fu kenn bët bo xamantani da war nga ka mën ray liñ liñ liñ def nak ñaaw na torop billahi duma len ko baal jéggi dëgër rek nga wax xam na ne lool waaye faaw nga seere sa papa parce que yaa gën a jege eh, kañ nga gëj a gis. sama papa dimanche bi passé déedéet dimanche dimanche bii bis toppoon laa ko gëj a gis moom ma gunge ba ma ñibbi jour jour bi may ñibbi sax dem naa dem naa ba si moom ne ko portable portable bi bu ko branché fii ndax xam naa xam naa ñii dan dan la ko fii jëlal ba pare créer la fi histoire bu dul jeex. silam si ne wax nga dëgg de mais mais xam mais xam naa ñàkk ñàkku courant rek a tax de mu ñëwaat def def ko fi di mais moom naru ko woon ndax waxoon naa ko. daa teg téléphone am ñëw fekk ko fo loolu indi jàppante ba ba mu ñàkk si bakkanam. ah loolu loolu daal lañu wax mais man fekkeewu ma ko loolu lañu wax mais fekkeewu moom dal moom dal baxna bëggu bëgguluñu dara lu bon bëggu luñu dara lu ñaaw lepp luñu bëgg rek moom ñu koy defal soxna woon nga ci jibi wala soxna am du bari wa jibi soxna la woon ci mom wa soxna am la woon mu doonon jëkkër ju baax dal xëy yalla yàlla mo ñewon sama digënté ak moom rek waaye yàlla dafa defoon ne ñëwum bi mu jee yàlla da xiiraatoon ci man man mi nekkoon soxnaam jural ko ay njabootam ba dem ñibbi keroog sama taaw bi moom moo ko yóbbu ba kër Samba moo taxaw fa di ma xaar mu yor ñaari téléphone yooyu waral histoire bi tey ci loxoom waxtaan nag man lu yàgg ji bi moo jëlal oto dindi 10 jox chauffeur bi chauffeur bi mu ne ko dindil paasu kii sama soxna la mu dindi 3000 jox ma ne chauffeur bi yóbbul ma ko ba garage Thiès waaw ma waxtaan ak moom waxtaan yu yàgg li ma gëj a def ak moom muy keroog ba ma jógee jur gi ba pare. ngeen yëgee xibaar bi da ngeen a jékki-jékki ñu wala ngeen boom nañ ko wala. waaw man mi soxna man mi nekkoon soxnaam jour xibaar bi ci suba si daf ma woo téléphone waxtaan ak man ci téléphone. waxtaan nañ lu yàgg mu coupé muy ree nii ma ne ko foo jëm mu ma damay dem raxas damay dem nettoyer sama moto ci ngoon gi daal laa toog ay 22 heures yooyu rek ñu woo ma ñu ne ma sama doom bi na ma rey nañ jibi dee na daa am ku ko rey loolu laa am ci kii bi. kan ko rey. ki ko rey de ñu ngi naan ñu ngi mu ngi tudd Assane Diop muy doomu nijaayam waaw muy mag ci man papam ak sam pap ñoo bokk ndey baay. jiwi mu doon sama doom bàjjan yaayam ak sama papa ñoo bokk nday ak bay hmm. ñom ay ciowal téléphone mo dox seen digënté ba li am. ah waaw dégg naa de ay ciowal téléphone la nekk dama ko dégg rek waaye xamu awuma ci lu ma leer daal waaw. en tout cas daal man ba may dem maa ngi bàyyi ñaar téléphone ci loxo ay iPhone la yoroon ñaar iPhone yu weex moom la yoroon ci loxom. fan la doon xeexee fii ci dëkk bi wala beneen dëkk la. non ci dëkk bi fii la ci dëkk bi fii daal laa dégg fa lañ doon xeexee mais leneen li moom xaw ma borom kii bi nu mu demee. asalaamaaleykum soxna si gannaaw ban la jaalee de la masaw ñu ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay fay soxna Anta Anta Mbaye di mag ci kii génn àdduna di mag ci Jibril Mbaye waaw. Anta Jibril génn àdduna ci amal doy waar ana ana kan mooy jibi. waaw jibi mu nekkoon rakk joo xam ni rakk ju baax. rakk ju yaru rakk bu jullite rakk bu maandu jotewul ak kenn dara liggéey wàcc néegam jàkka ja jotewul ak kenn dara ku nekkoon ci néegam tey jii mbedd mi di riir yoonam nekku ci maandu loolu laa xam ci jibi nekk nit ku baax alalam du ko boole ak kenn ku mu jàppanteel ku nekk rek yaa ko tooñ waaw loolu laa xam ci jibi. maanaam ana ko mujjee ngi ko mujjee gis bi tabaski desee juróomi fan. mu ñëw kër ga ci seet sam papa ci la ko mujjee gis. lu leen ci am da ngeena a jékki rek ñun leen manam Wow nañ ko am doon histoire wala mom ci la doon dox ba walu wi am. waaw man dama tok sama kër rek ba ñu woma xamal ma ni gibi dañ ko jam ah, man après ci la woté bi woté jot magam bu jigen rakam bu jigen mu xamal ma ni jibi génn na aduna ma laaj ko mu ni doomu nijaayam la doon xexal mu rocc jaasi jam ko man ci la ñew ko ay nak lañu jotee man xawma ko xawma lañu ah. la ñu kan jotee waaw. wax yu sew dafa musa xaw sen digënté loolu wóoruma nak wax dëgg yalla parce que gibi nijaayam moko yar ki ko nga xamni tay ji moko ray eh, ko rey papay kooku moom moo yar mu bok ya ak yaay yaayam nday ak bay waaw lepp ci kër gi la xewé nak mais munu ma ni li mo len jotté wala lee mo len jotté ndax fekkewuma waaw. Fort Tchioubeini moom dafa dafa doon nit koo xam daal xelam dafa xaw a nasax tuuti wala. ah loolu de maag moom ñoo bokk ñoo juddoondoo depuis ba toll ni ñu toll mais mosuma koo dégg mosuma koo gisit waaw bu amoon man mi mu bokkal may magam mu tuddee ma doom du ñu umpante maag moom kon dinaa ci xam dara waaw mais loolu daal man mosuma koo dégg mosuma koo gis mosuma fu ñu gisee fu ma gisee ñu ne nañ ko yóbbu hôpital wala dañ koy jox garabu doof mësul am waaw. nit njaay la woon. nit njaay la woon ànd ak xelam ak yëpp li ma la wax rek nekk nit ku baax nit ku yaru bëgg ñëpp respecté ñëpp ay magam bu leen di woo sax du jaar seen tur yaay booy wala mag ji rek am njaboot tuddee ko ay doomu baayam yëpp man mi tuddee wax ak yow tuddee na ma doom kon kooku du li mu dem moo tax ñuy sedd ci moom lu baax dafa baax. dafa juddoo baax yaroo baax màggee baax dem ci mbaax it baax rek lañ xam ci moom waaw. am na liggéey moom. da daan liggéey bu xëyee génn na këram dem liggéeyi lu mu mës a am ci àdduna moo ko ñaqal boppam du tàllal kenn loo xam ne ko may ma lu mu am moo ko ñaqal boppam. tey jii bu gisoon sàqet bii xam ne bu ko jaay bu ko bu ko dajalee ràbb ko jaay am ci dara mu lew ko dina ko def lu ko lew rek lay lekk mësul jël alalu jàmbur mësul def kenn dara lu ñaaw mësul am waaw. Euh, déedéet ñun suñu taw nekku fi ñu taw nekku fi waaw. ay njaboot yu sew. waaw am na juróomi doom ñeent yu jigéen ak kenn ku góor kii ak kii doomam lañ ñaar ñi waaw. jërë ngeen jëf mbokk yi gisee ko mi ngi noonu. waaye mbir mi dafa xewe nag ci biir famille ah, natto bu dal la ci biir famille gis nga waa kër jibi ñoo nekk nii mooy ki nga xam ne moo génn àdduna waaye tamit sama ginnaaw ne la eh, waa kër Assane maanaam yaayu Assane foofu la toogee Assane nag moo góom jibi ba tey nag kenn tëggagu ko ay gët nee na furaas comme daal di maanaam ndaw waaye yoon mu ngi ciy def liggéeyam bu solo léegi dañuy dem nag ci yaayu Assane mi nga xam moo boom ñu dégg ko suñu micro moom mu wax gis-gisam ci mbir mi ndax mbir mi natt la bu dal ci biir famille rek euh, la ca mën a xaw lépp ñoo ko xam kon da ngeen di ànd ak seen soppe rek ñu dem ci biir ñu mën a dékk yaay asan micro Moussa Mbaye ñëw. salaamaaleykum ñu ngi lay masaw. ba bàyyi la nga nuyoo. maa leen di nuyu nekk turam ak sant leen baal la ak di leen wax dëgg yàlla problème bi ci kër gi day suma ci waxe sax day melni ay fen ci man waye dina ci wax rek di sama ak ak lu gis ndax fekkewu ma ko wax deug ci yalla wóor na sëñ Babacar si fekkewu ma ko damaa demoon tool bi may dugg ci fii bobu timis jotna na ma ñëw na xaar ma lu tuti sangu bi ma duggé di sangu bi may solé yëre ñi noddu jéema na xaar ma julli ba paré ma dégg ay yoo wóor na yàlla ak sama bàmmeel gi ma toog ma ne lan moo yuuxu ci biir kër gi nii ñuy yuuxu yuuxu nii lu xew ma daal ni bërët génn bi may laata génn taw uti nee rek gis nit ki ci suuf ma lii lan la ne kañ la xew ci kër gi li am fii ñu ne ci jibi ak asan ñii laa ci toll yàlla mi ma tiim mu may dégg ma tiim leneen lu ma ci manti wax wóor na yàlla damay fen mu mel rek ñëpp seen njaboot la. ñëpp suñu njaboot la ñoo ko yar kii tëdd tey wallaay ñoo ko ki ko rey maa ko jur yaay ak pap man tey jii yàlla mi ma tiim xam ne ne bu fekkoon dama ko fekkee xam commencement bi yëpp xëy na dina am waaye du mel ndax dinaa ci def lu ma mën ndax jigéen laa dinaa yuuxu sax woo wallu waaye yëguma yàlla mi ma tim xam ne ne yëguma ko benn yoon lu ma bett la moom laay jooy nii suba ba tey moom laay jooy démb ba tey bi moom am nañ ay seere si waaye gannaaw ba loo ñu mën a wax ci Assane mi nga xam moo buum Assane ko xam naa jikkoom sama waxu tey mooy sama waxu démb mooy sama waxu barki ba ma ko juree nag ba tey fi mu toog nii ba lii dal ko musuma gis fu mu yoree gànnaay jëm si nit musuma dégg xeex na jam nit musuma dégg xeex na nàcc nit wax dëgg yàlla lu ma wax fii ma toog bu dee ay fen yàlla naa ko fekk si ma bàmmeel lii daal mënuma weesu leneen xamatuma ci dara dara dara xaw ma ko ci